Jordan bu mbuur maa ngi lay ziar. Babacar ziar naa la. am nga jaam. bu wér a wér. Jordan xanaa léegi daa bàyyi làmb ji. non bàyyiwuma làmb ji man bàyyiwuñ làmb ji yow yaa ma gën a xam ni làmba ngi soox fi mu toll nii. mais yow dañ laa gëj nga bëri arène. maa ngi entraîné maa ngi entraîné toog sama ruq ku ma seet si ma bëreel la mais kenn seet si wu ma làmb xam nga ni doxul bu ñu waxantee dëgg. Hmm. waaw. lu ko dox. bari na. limbal ma ci dara. waaw parce que fi mu toll làmb li ko gën a ne mooy. promoteurs yi am nañ seen i mbër mbër yi am nañ seen i promoteur fi ne dañuy jaawale mbër ak pip borom public hmm. waaw ah mais mbër yi tam est-ce que ci public wala waaw taamu nañ ci public mais public yàlla moo koy maye man ngaa man ñëpp te doo am public promoteur bi joxe million tamit bu maanaam bu ci mënta amaat ay revenu est-ce que dina sotti waaw ñun ñun xam boo gisee làmb di xaw a metti si ñun moo tax mooy promoteur dañu dul fekk si mbuur dañoo bëgg ñun ñu décentraliser ñu ñëw mbuur nga xool parce que li mbëru Dakar yi am Dakar ñun mbëru mbuur yi moom lañ am bu ñu décentraliser ñëw mbuur dañuy feesal stade comme ni ko waa Dakar di defee mais nag boo bëggee jëlee mbu mbëru Mbour da yóbbu ko Dakar après ni amul ay nit day xaw a metti quoi suñu day metti ah. suñu mais yéen am ngeen promoteur ay promoteur sax gis naa fi Ligue Nicolas Loos ah. même si di jaxate fii la ni ci departement ah, promoteur u Dakar la Ligue Nicolas lim tëgg fii Mbour si laam mën nga kaa wàññi ah déet waay yow itam man 24 combat laa tëgg gis nga man nit journaliste bu bañ ma tontu la si li nga may laaj bul ma ko laaj. li man moom 24 combats laa bëre. en tant que Jordan bu Mbour. ñaari combats la ma mës a tëgg. sa carrière yëpp. sama carrière yëpp 24 combats laa def ñaari combats la mës a tëgg si sama carrière. loolu lu ko waral. a ah, mais attends du yow yaa wax ne promoteur Mbour la. Ah, dama ne am ngeen ay promoteurs yéen waa Mbour. am ngeen Loos am ngeen Ligue Nicolas am ngeen Sidi eh, Diakhaté. yàggul la ñëw Loos barki démb la ñëw benn benn saison la ñëw lamb ji sooxe fekkewul presque am ngeen mën Ndumbe. mais attends am nañ loo xamante ne man sama ñi ma samay promoteur potentiel. Ligue Nicolas la. kon lig loo koy wax. Ligue dama ko naan pour bu buggee ni que jàppale jeune mbuur yi day retourner ñëw ci doomu mbuur yi parce que je suis mbuur waa ñun mbuur lañ dëkk moom mbuur la dëkk war na mën a wàcc si terrain bi jàppale waa mbuur ba ñëpp gis leen daan na ko wax ay temps nag daan na ko wax ay temps ni man dama bëgg mbuur jëm ca kaw mbuur jëm ca kaw mais daf ko daf ko bàyyi. jàppale kon. ah man de ma part personnel de jàppale ma. sa écrit nag. jàppalewu leen. yeneen écrit yi fi ne. ah xaw ma de mais man sama écrit yi laa xam booy yi ma jiite laa xam Luc Nicolas su ma mënee am man vingt 24 combats mu tëgg ci ñaar. dañu wax sa ban combat ak ban combat la tëgg. maak Tafa Gueye la tëgg ak maak Ngor Galange benn bi Tamba benn bi Mbour. 24 combats yi ma def yëpp 20 victoire laa def benn sans verdict benn match nil deux défaites. kan ak kan daan yow. man ngeer bu sab moo ma njëkk a daan tournoi du souvenir à Dakar. beneen bi Sélémélé moo ma daan muy deux deux défaites. ah déet Tafa Gueye deux. Tafa Gueye loolu dellu daan talonaat ba Tamba. non non non ban Tamba à Tamba. non laaj tegal si di. ah déet da déet talonaat ba image bi. a ah, waaw. Ah, génne ko. image bi ci réew mi taxaw génneel image bi. Ah, yow lu tax nga ne daanu la. génneel image bi nga wax ma bëre ba nu mu demee Jordan. ah moo tax man la kon amoo image. déet am naa ko mais yow yow mi bëree kañ ne ñu la. te ñu jox ko victoire. loolu du ma si débat da ngay teg image yi. Tafa Gueye nangami promoteur waan nañ ko pour ñu leeral suñu combat boobu dafa bañ. deux waaw Tafa ba tey nii yow loolu pare nga pour ngeen leeral. moo ma teree nelaw nga naan ni Tafa Gueye deux fekk daa bu ma ko daanoon rek mën naa teg sama ngem man. xanaa lam la da laa métti. non métti wu ma sax c'est dama ko man foofu arbitre yàq sama laam. waaw mais talonaat ba du moo jeexal. combat seetaanal victoire bi bi rek seetaanal image yi rek man kay loolu du ma si débat jëlal békaay demal si 2S mu nga woon si lam ja demal ñu jox la image yi nga seetaan bu defee bu bu site amee nga ni ma fii la amee hmm. waaw man amul mbër mu may daan ma contesté hmm. boo ma dëppee interview dama la naan diw daan na ma daan na ma nangami yoon hmm. muy mbappat ak lépp man Babacar boo bëggee dégg dëgg ma daan ñëpp toog ni pat luy loolu noo daane ñëpp alxuraanu kan nga mën a daane ñëpp man maa mbër mi daan ñëpp génération ah. deux mille trois deux mille trois ba deux mille onze mbër muy takk ngemb war naa sa kaw kan ak limbal ma ci limal yow laay laajal da ngaa daan Balla Gaye Balla Gaye mu bokkuñu génération. yaa ko jiitu Balla Gaye li ma mbappat mbappatu ko. Ah. billaahi wallaahi. li ma def ci mbappat fi ma doon jaar jaarul foofu. kon yéen ñaar ku gën a wóor bëri jaaroon ñu daje bërekat la nag ndaanaan ku fadrin la. yaa ngi moom. Oh, non maa ngi moom mosuñoo bëre moom. mosuñoo Modou Lo da nga koo daan. Modou Lo bokk nañ équipe nationale mais mosuñoo bëre. Ah. mosuñoo bëre bokk équipe nationale 2007. yow yan génération nga daan ma ñi nga daan. si mbapat wala si arène si mbapat si mbapat. Ah. mbapat boo ñëwee si génération deux mille. deux mille deux mille trois. ay Louis Thior. ñooñu ñëpp daan naa leen. daan nga mbalka ma. daan naa mbalka mu daan ma benn yoon. ko daan. naa ko benn yoon mu daan ma benn yoon. Malal Ndiaye. Malal mosu ñoo bëre. Ah. waaye bokk nañ làmb lu bari. paka la bëri ngeen Amady Ndiaye daan naa ko six. six fois six fois. Mbagnick daan naa ko quatre fois. sama ah. génération laa lay limal. mon un. Galas l'an deux mille daan naa ko cinq fois. ah Gallas a ngi lay dégg. wala daan naa ko drapeau chef de l' état arbitre ko kek si suuf te boobu quatre vingt cinq boobu poids léger la muy poids lourd bi arbitre di génn suñ diggante laa koy daan mool un. assurance. assurance sama booy la duma ma bëree ak moom kooku ñoo bokk mbuur. ci mbapat laa wax. no bëre wuñ mosu ñoo bëre si mbapat. paka la paka la daan nañ bëre mais bëreetuñ. Hmm. waaw. ay gaskel jàmme yooyu. gaskel bëre nañ. Hmm. bëre nañ daan na ma. Hmm. waaw. rëg-rëg moom jotu ngeen a laale. rëg-rëg daan na ma final. final benn yoon waaw benn yoon lañ mës a bëre. waaw. lutte simple bi ku ci dàq bëre. lutte simple bi kenn dàqu maa bëre man. ku ci dàq bëre laa maa ci dàq bëre. même ñoom rëg-rëg. ñëpp ku ma ci dàq bëre man kuy takk ngeem. c'est que man maa toog ni pat rek aussi ñun amuñu ay waxukaay. tey wax ak kaay ngi nii kaay yaa ngi nii di wax. gis nga lii fekkoon nañ la fi maag fële. ba nga ma fa fekkee loo gis. <laughs> Ah, man. dama bëgg yéen ñii di yor moom ñëpp lañ fi ne ngeen di décentraliser barki alxuraanu karim penku laa jublu am na ay mbër yu ne si petite côte bi boo jógee mbuur ba ba nga yegg Palmarin ba ba ngay dugg Gambie ay mbër a ngi fi yoo xam ne yéen su ngeen duggul si ruq yu nekk génne leen duñ génn barki rasulaay te nañ du manu leen ñu naa la jox benn exemple drapeau chef de l'état fu mu amee par la force par la force ñiy jël làmb yi yëpp trophée yëpp ñi si ëppale petite côte lañ dëkk Palmarin Mbour Joal ñi si ëpp. zone petite côte lañ dëkk ñi si ëpp defal lool takk nag bàyyi ko xeel bu baax. waaw bàyyi ko xel drapeau chef de l'état wala lit wala wala wala mbapat boo gis. muy mbapat bu mag. boo demee huit personnes yi des quart de finale boo wàññee huit yëpp par force am ku si dëkk Petite Côte. kon waa Petite Côte bi moo ñoo dàq bëre waa Dakar. mbapat fuuf parce que mbapat amul tànn mbër bu dee Dakar nag danga nga naan Balla Gaye Modou Lo bëgg Eumeu Sène Gris Bordeaux laa bëgg. boo Bombardier Eumeu Sène laa bëgg loolu dangay ngay mais mbapat amul choix da ngay tëgg teg ñëpp ñëw. ku man jël ku mën jël. ana Basoka. Baso mu ngi étager ni ñu ngi déggante léegi ni ma koy envoyé réunion bi gars yi def ni ñu ngi koy nuyu Baso. ñu ngi suñu xarit la maag la mi. yow yow moom borom baax nga yow moom sama xarit nga sama xaritu bopp nga waaw foo ma gis daraaya ma kaf ak man rek man mais damaa bëgg nga def loolu takk. non def na jàpp naa li nga wax. jàppal li ma la wax de. lamb boo mën a dem. drapeau chef de l'état lépp fu mu dese huit personnes wañal bu si mbër desul boo ñëwee ma ñawal la yére bu rafet mbër mu dëkk Petite Côte. man kay di ma ñawal me bu ci mbër desee bu ci desul la <laughs> bu si mbër desul ñaw gi moom force la. mbër mu dëkk Petite Côte bu si desul rek boo ñëwee ma jox la ñaw bu rafet jox la xaalis bëri nga yóbbu. Ah, mais mais mais yow moom gaañu mbëri nga yow moom wax dëgg yàlla mention spéciale. Ah, yaa ngi doxal liggéey bi nu mu waree. parce moo tax foo ma gis. lu mu xat-xat-xat loo soxla si man am ko parce que nit ku baax nga ba ma la xamee ba léegi ni ma la xamee noonu laa la xamee te man noonu laay doxee ah jeunesse su Sénégal ñoo amatul espoir si dëkk bi parce que boo xoolee làmb équipe boo dem liñ recensé si nit ëpp na cent et quelques personnes ñu xëy benn jour tëj làmb ji presque un an ñu tëj làmb ji mbër yënguwul mbër ra mbër marsul mbër deful dara yaa ngi dégg kon ñun war na ñoo mën a delloo njukkal te amul benn situation boo xam jóge na si état ñëw ci mbër te pourtant mbër yi def nañ délégation dem si ministre des sports ministre de la santé joxe lañ am yóbbu lañ am du dëgg kon nag xeex boo gis dafa am dompat sax si sot la bokk ñun waxuñu ni lii par la force mais dafa am ñu xale yu topp si suñu ginnaaw yoo xamante ni suñ tëjee làmb ji lor ñu lor leen lor lor lor dëkk bi parce que dinaa la jox benn exemple bu ndaw feebar am na feebar bi am na mesure barrière yi nañ ko respecté mais gis nga nawetaan yi ñu arrêté kankurang yi ñu arrêté mbuur suñ ko bàyyi woon booy dinañ dekk see nañ am beneen leneen beneen xalaat bu dul dugg si gaal yi di mbëkki mais nga ni ko doo fo mu bugg a dox nga ni ko doo dox tëj ko benn place bu toogee ñetti nit yu toog dinañ am beneen esprit buñ dugal seen bopp dinañ tux wala ñu naan wala ñu dugg si yeneen i détails yooyu yëpp ay cause la yoo xamante ni day dellu si waat dal si kaw xale yi te bu boobaa état da si am part de responsabilité bu que du feebar bee tax ñu tere leen yooyu rek waaw feebar bi d'accord feebar bi am na mais mesure barrière yi ñu wax ñu respecté ko hmm. nañ ko respecté d'accord feebar bi am na mais dama ni xale yi ñu bàyyi leen tuuti ñu firi ñu ñu firi tuuti mais boo tàncee xale bi toujours man mi moo la gëj nga géej ma toujours damay dem géej pourtant mënoon naa def li xale yi def dem dugg si gaali yi dem mbëkki mais du ma ko def parce que sama esprit passé na foofu mais xale bi am 18 ans deretam di tàng muy entraîné xalaatul lu dul damaa war a am xaalis si nii wala si naa xam nga bokkul ak nit ki nga xamante nii yow dund nga xaw a yaatu tuuti di nga am benn expérience boo xamante ni doo dugg si détail yooyu mais am na loo xamante nii bu dalee si xale mag ñi ñoo ciy mën a ñëw jàpp dimbali xale yi mais Sénégal xoolal li ñuy wax si feebar bi xoolal mbëkk mii si géej gi li mu rey si ay nit même pas deux semaines nga plus trois cent et quelques personnes ñëpp. amul ku si matal 30 ans boo limee ñi si dee yëpp à l'âge de 18 ans la jëm 30 ans kenn amu si 40 ans. am na solo léegi fi may jeexal daam am fu may jeexale ak yow rek lu lu gàtt El Hadj El Hadj Raadou. ci Modou Lo xam nga ñaari mbëri xam naa leen bu baax xam naa leen bu baax kenn ki xam naa ko bu baax. kenn xam naa ko Modou moom xam ma ko ndànk. Ah. bu baax laa ko xam. Ah. waaw ndax benn sama xarit la sama gaayen la. làmb nag boo si laajee nit. man damay teel a wax ragal féete day xañe a wërsëg Modou Lo suma xarit la 2000 depuis 2007 lañ xamante man ak moom di déggante téléphone di waxtaan di comprendre di seq lu ne mais dama ni la waxoon naa ko dinaa ko waxaat Modou Lo góor ëpp ko doole. yaa wax lii maa la wax lii ci télé laay waxe amul góor guy tàkk tubay gu ko ëpp doole nit ñi nag dañuy jaawale ñaar.